رجائي رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأقوام في كل قرية eh, mooy yàlla mu ne mooy yàlla su siiwee ba nit ñi nëbbatuñ ko su siiwee ba nit ñi koy def nëbbatuñu ko dafay waral ay balaa di wàcc dafay waral ay balaa di wàcc di waral ay feebar yoo xam ne duñ xam lu koy fajee di wàcc di waral ay feebar yoo xam ne duñ xam lu ñu koy fajee di wàcc di bëril dee itam ci mbindeef yi di wëb di bëril dee itam رجائي رفع الدين والسنة التي تجاهلها الأقوام في كل قرية